salaamaaleykum nuy nañ leen ku ci nekk seen tour ak seen sant waaw comme d'habitude képp koo xam ne nii abonné goo ci sunu chaîne YouTube duñ def lu dul wax la nga abonné activer cloche boo ko defee benn suñu vidéo dootu la rawati mais surtout ngeen di liker di commenter ko partager loolu ngeen ñu mën a soutenir bu baax a baax dañ leen indi la xibaar yi nga xam ne jot naa rot ci bëccëgub tey ji ci wàllu wàllub tàggat yaram football gën cee fes dañ ko jiitaleeg presse internationale bi euh, presse bi ñu naan Barca moom mi ñu xëy xët gu njëkkam Mamma Mia ak euh, partido maanaam Mamma Mia euh, ak quel match match boo xam ne war na dox diggante Real de Madrid ak ki ñu naan Valence mu doon ñaari coach yu mag yoo xam ne ni war nañoo jàmmaarloo kenn ki di Gattuso keneen ki di Ancelotti nga xam ne lu ne def na ko euh, fële ci Real de Madrid ci super bi nga xam ne ñu ngi koy waajal demi-finale bi Real ak ki ñu naan Valence match boobee du yomb dañuy dem directement ci Dario nag moom mi ñu xëy xët gu njëkkam super reto euh, super défi match la boo xam ne nii tamit Barça mu ngi ko war a jàmmaarloo ki ñu naan Betis Séville mu doon défi bu mag a mag bu nu war a euh, jàll euh, xooli leneen dem ci final bi ngir war a mën a jël seen super coupe actuellement FC Barcelone loolu mooy seen objectif gis nañ ne Atlético Madrid nag moom dafa bëgg ak ki ñu naan Memphis Depay Madrid war a jàkkaarloo ki ñu naan Valence ci demi final boobee ba tax nag doo Mundo Deportivo moom it ñëw xëy ñu xët njëkkam di leeral Atlético Madrid moom bëgg-bëgg mooy jënd ki ñu naan Memphis Depay nga xam ne jamono jii euh, titularisation am fële ca Barça euh, bëreetul ci noonu nag actuellement ñu ngi ci procédure bi ngir war a jënd euh, Hollandais bi nga xam ne mën naa ne ci coupe du monde bee weesu blessé na waaye def na fa ay jaloore yu am solo réew mi sport nag moom la ñuy njëkkee ci sunu presse locale bi moom mi ñu xëy xët gu njëkkam Sadio Mané de retour au centre d'entraînement maanaam Sadio Mané gis nañ ne jamono yi nga xamoon ne toogoon na ko entraîné wul lu waraloon loolu mooy que blessure bi mënuñu sax mu xaañ ko coupe du monde bi nga xam ne euh, ñëpp a ngi ko doon xaar actuellement nag nouvelle bi wàcc mooy que Sadio euh, commencé waat na entrainement yi euh, ci centre d' entraînement wu Bayern Munich mu doon une bonne nouvelle yàlla nañ ci yàlla defal jàmm ak salaam ba mu retrouver terrain yi gëm nañ yaakaar que ni février ci match bi war a dox diggante PSG ak ki ñu naan Bayern Munich war na cee mën a football wii sport nag moom xëy ñu xët gu njëkkam um, CHAN 2022 jour ji mooy de les lions locaux en terre algérien ñoom nag agsi nañ Algérie leen ci jàmm ak salaam waajal sunu Coupe d'Afrique boobee di ñaan yàlla yàlla may ñu fandam ñu jël ko ci euh, njekk ak teranga Edouard Mendy euh, pour remplacer De jamono ji Manchester United mu ngi ci ay tànkam ngir bëgg a jënd ki ñu naan Edouard Mendy France et Belgique euh, rivalisent pour Malay Diagne Malay Junior Diagne le jeune joueur bi nga xam ne moo nekk fële ci jàmbaar di fa def ay jaloore yu am solo actuellement France ak Belgique club yooyu fa nekk ñu ngi jéema def le tout ngir mën a jël gone googee nga xam ne mu ngi def lu am solo fii ci championnat Sénégal la record na xëy ñu xët gu njëkkam un espoir de retour face au PSG kooku kan lay waxal Sadio Mané suñu international euh, sénégalais bi nga xam ne euh, jamono ji commencé waat na entraînement am nànk-nànk te am nañ espoir que ni euh, match bi war a dox diggante PSG ak ki ñu naan Bayern Munich d'après xibaar yi jot war na cee war a mën a football ba jàppale ki ñu naan Bayern Munich bu baax a baax Bamba Dieng en guide de l'OM Gueye plus que plus de temps de jeu comme axe gauche Baba Gueye actuellement coach bi bi ko bëgg a wu comme en tant que ak central gauche mu doon loo xam ne nii euh, bërki démb Ndiaye lañ jot euh, nouvelle boobee euh, dañuy terminer ak stade yéene kaay moom mi ñu xëy xët gu njëkkam Sadio Mané objectif février lu waral loolu mooy que actuellement gis nañ ne muy commencé at entraînement Bayern Munich d'après xibaar yi ñu jot foofee am nañ yaakaar que ni match bi war a dox diggante PSG ak Bayern war na cee mën a football ba jàppale Bayern bu baax a baax ci entraînement yi nga xam ne ci la nekk nii ki ñu naan Mame Biram Diouf 35 ans et toujours efficace yéen kaay tëjee xibaaram boobee gars yi lool moo nekkoon xibaaru bëccëg gi di leen xaar ci commentaire yi nan ngeen ko gisee ngeen continuer di abonné ci chaîne bi activer cloche ci ñu ko defagul mais surtout ngeen di liker di commenter ko partager ba beneen yoon ci yeneen xibaar